waaw kay salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi di siyaare bu baax leen wax xew-xew bi gis ngeen fi suñ borom wàcc tay muy mbaabaan muy mbaabaan murit kër siñ mataar si moom la nekk nii waaw lakk gu doy waar kër gu jeex takk takk takk takk jur gaa ngi nii tëdd dara génn ci dara jur gaay ni nii dara gennu ci benam nak dal mo génn te nak bi dafa gumbu sax bu muntu a gis waaw gis ngeen fas bi ma tiim nii fas baa ni waaw dafa lak ba jeex tak dafa lak ba jeex tak waaw deuxième fas baa ni gis ngeen gis ngeen ko ni lakke lakkee ba biir bi génn ni bir bi kat beneen fas baa ni deuxième fas baa ni troisième fas baa ni gis ngeen ko de waaw métti na trop nit ñaangi ni nak nit ñaangi gis ngeen ngoñ mi ne na takke booñ maa ngi ne tàkk ñu ngi woo sapeur mais amul kenn ku ñu wàllu waaw amul kenn kenn kenn ku ñu wàllu amoon ak jaaxle lool lool lool lool gis ngeen mala bi gis ngeen mala bii ni biir bi def de waaw gis ngeen ko ni biir bi dafa dafa dafa lakk ba jeex tàkk waaw dafa lakk ba jeex tàkk gis ngeen beneen baa ngi encore beneen baa ngi nii quatre lan beneen baa ngi gis ngeen ko beneen baa ngi waaw métti na trop trop trop trop mbooloo maa ngi nii di fay mais amaguñ ba léegi eh, ba léegi waaw ñëpp na trop trop trop waaw métti na fu métti yem nag métti fu métti yem kër gi dara dara dara dara sax dafa mel farlu ko waaw